yu 2STV yi di leen jaajëfal ci seen euh, teewlu ci première chaine de télé privée du Sénégal bi ngeen gisee euh, décor bi ak li ñu wër ngeen xam ni euh, ñu ngi fii ci Kaolack plus précisément ci médina Baye ci ndax xam ngeen di gàmmu bi samedi la di suba ñu fas yéene rek célébrer lu ñu naan mawlud mu di juddub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Euh, gis neen nag chaque année 2STV day déployer euh, moyens yu bëree bëri ngir rek daal di def couverture événement bu mag bi nga xamante ni euh, Sénégal mësu ko wute loolu nag dañ ciy faral rek di leen dégtal ay programmes yu am solo bokk na ci toog waxtaanee li nga xam ni moom moo jëm ci Cheikh al Islam Baye mi nga xamante ni ñëpp xam nañ place bi nga xamante ni am na ko ci diine l'islam rawatina nag moom place bu mu jox yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ay jàngaleem ak li nga xamante ni moom moo di œuvre am loolu moo waral tey ñu fas yéene ko waxtaanee waxtaanee gàmmu lu waral gàmmu ñuy wax gàmmu ba di ko célébrer un peu partout ci Sénégal rawatina euh, fii ci Medina Baye nekk point de convergence euh, bu euh, fidèles yu bëree bëri loolu nag dañ ci fas yéene dalal suñu ganu bés bi di oustaz Ibrahima moom mi ngi nekk directeur général bu école Ibrahima Niass ci fii ci biir Kaolack ñu ngi lay nuyu cheikh bi di la dalal ci plateau de STV. waaw ñu ngi lay fay di wax euh, bismillah wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an mawlana abil abbas sayidi ahmad atijani radiyallahu an mawlana euh, cheikh ahmad ibrahim cheikh ibrahim ibn alhaaj abdoulahi Niass saaxibil fayda tijaniya di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di la ko wax di wax ko ñi nga àndat di leen dalal Euh, comme ni ma ko doon annoncé rek euh, tout à dañ fa yéene waxtaanee lu jëm ci gàmmu nga xamante ne euh, ñu bëri nañu koy célébrer ci ci ci Sénégal mais fii itam ci Medina Baye am na lu tax mu nekk point de convergence kuy taalibe rek da ngay jógee fu nekk gis nañ fi xeet bu nekk nationalité bu nekk itam nekk fii ci médine Baye tey bu ñu taxawee ci sensu gàmmu lan moo waral tey ñuy gàmmu ndax am na coow yoo xamante ne judd na ci depuis un bel un bon moment dañuy taxaw déjà ci sensu gàmmu balaa ñuy ñëw euh, ci li nga xam ne moom moo di polémique bi am autour de de de cet événement. waaw gàmmu euh, dafa yàgg euh, ñi ko moomoon mooy ceddo yi ñoom ñoo njëkk a gàmmu hmm, dégg ngeen gàmmu ko woon walla gàmmu feneen waaye gàmmu boobu gàmmu aadala ak cosaan ak li nga xam ne mooy ak ceddo lislaam amu ca benn cër. bakkan rek la woon ak aada ak cosaan ndax gàmmu goo xam ne euh, wuy ci gën a euh, euh, neex a dégg mooy gi gàmmu ku ci ñaaw de ku ci rafet jaan mat la ci nooy nooy loolu du diina du aada la ak cosaan waaye mag ñi ñoom maam alxaaji Abdoulaye Niass nga xam ne 1911 moom daan na gàmm bu yàgg waaye 1911 bi mu demee ba Fass gis waa Fass ni ñuy gàmmoo bi mu ñibbisee dafa jëlaat chance boobu nga xam ne moom la waa Fass di gàmmoo ak wéy yi ñuy wéyal yonent bi ak niñ koy tatagalee comme ni nga ko waxee technique ato bi euh, Cheikh doomam bi mu dëkk bi 1929 ba 30 jël moom itam loolu ba pare dolli ci euh, dëppale ko ak jamono léegi nag gàmm moom bu ko sëriñ waxee mooy baat bi mën naa dajale nit ñi waaye sens bi nga xam ne moom la ñuy jox nit ñi bu ñëwee ci gàmmu gannaaw fii ci cosaan dañoo miinoon gàmmu mooy lu xumb boo agsee liñ lay wax mooy danañ la wax euh, lan mooy sa diina kan mooy sa yonent lan mooy jikko yu rafet yi nga xam ne yi moom la yonent boobu am nga xam ne képp ku gàmmu si soo déggee yërmande dégg lewet euh, dégg jéggale dégg mboolem jikko yu baax yi nga xam ne moom rek moo mën a baat crise de valeur soo ko déggee ci foofu ci gàmmu gi dana tax nga soppi sa doxin dana tax nga soppi itam ni nga xam ne noonu nga daan defee te aada ak cosaan rek moo la ko joxoon lii nag diina la lii la yàlla wax lii la yonent bi wax yonent bu rafet boobu bu taaru boobu bu baax boobu lii doon ay jikkoom su ko defee nga xam ne kooku mooy sa royukaay loolu nag lii indi nag fii nekk centre boo xam ne international la dafa am Euh, suñu kilifa gu mag ci wàllu média ñu koy wax alaaj Cheikh Gassama dafa mas laaj baay ci rajo Dakar ne ko ndax dagan na nit jóge ko place bu sori romb ay place dem beneen place pour gàmmu ji baay tontu ko tontu boo xam ne bi ci la ñuy xamee lan la fi nit ñi ut si mu ne ko gàmmu sàkku ndollal la te kenn ku ne yaa xam fa ngay dollee ko léegi malgré tout ça parce que li nga fi jotal cité yëpp ay ngëneel la ak loo xamante ni mën na defar ki nga xam ni moom moo di taalibe bi mhm. euh, mais n'empêche que am na ay polémique yoo xam ne da ci am autour ñi ne gàmmu bi daal yàlla santaanewu ko ba ci am na sax loo xamante ni euh, ñu ci bëri moom taxaw nañ ci yenn ci ay euh, tarixa wala jullit en tout cas di ne gàmmu du lu ñu santaane lu ñu santaane donc warul mën a am. lan fii ñu toog ñun. Mhm. gàmmu ci alquran la ko sëriñ bi jëlee moom moo toog ci diggu baye gi ak kaalaam gu rafet googu mboolem nationalité yi wër ko mu ne moom gàmmu moom Cheikh Ibrahim Niass mi ngi ko jëlee ci alquran ndax afa am aaya buy wax naan wa kullan naqussu alayka min amba'i rusul maa nuthabbitu bihi fu'aadak mu ne bu fekkee ne yonent bi ak nim matee moom la yàllay wax ne ko danaa la nettali euh, siira ak li nga xam ne mooy jaar-jaaru yonent yi la jiitu woon ndax ñu gën a saxal sa xol ci gëm yàlla bàyyi na bu fekkee yonent bu mat boobu moo soxla ñu nettali ko yonent yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon pour mu dolee ko gëm gën a sax ci gëmam kon ñun ci jamono ji jamonoy internet jamono ji koy yàqu yi jamonoy jamono ñoo gën a soxla fuuf ñu nettali ñu Euh, siiray histoire gën ji te loolu moom ñiy wax ci gàmmu ñàkk gàmmu amul ci kenn koo xam ne kii ñeme ngaa wax ne yonent bi du wut ne mooy gën ji gën ji la yonent bi yàlla wax loolu kon gën ji mbindéef ñuy nettali siiraam mag ñi jël ko ci jikko yu yàqu yi ak ñi sàgganee diina dajale nit ñi gàmmu di leen jàngal seen diina lan la yàlla wax lan la alquran wax lan la yonent bi wax yàlla moo la bind lii moom la la sant lii la la tere loolu mu ne bu fekkee ne yonent bi lañ waxoon ne danañ la nettali yonent yi nga xam ne moo jiitu te alquran la muy aaya bi ma jàng léegi kon mu ne ñun ñoo gën a yey pour ñun ñu gàmmo di déglu siira yonent bi comme alquran waxee yonent bi ne danañ la nettali yonent yi passé ndax nga dolli ko gëm yàlla kon ñun gàmmu fii dafa ñuy dolli bëgg yonent bi gën ñu dolli bëgg alquran gën ñu dolli gëm yàlla gën ñu dolli ñu jàpp ci li yàlla santaane ak bàyyi lim tere tey euh, naka la lan lañ mën a jàpp surtout ci génération bi nga xamante ni fekkeewuñu comme sànq li nga ko doon nettalee ci ay jamono luñ doon gàmmoo euh, bi ko bàyyi euh, tàmbalee itam ba ci jugam bu góor également li mu ko tàmbalee tey boo doon def peut-être benn évaluation wala xool li nga xamante ni moom mooy gàmmu bu njëkk ba ak tey lan lañ mën a retenir ci ci évolution bu mu am. waaw gàmmu yokku na ndax Baye moo daan génn moom. moo doon acteur bi waaye amoon na équipe boo xam ne ñoo daan wëy waaye comme ni ma la ko waxee li nga xam ne lii mooy euh, euh, euh, principe bu mag bi ci gàmmu mooy fàttali nit ñi jikko yonent bi sallallahu alayhi wa ñu roy ko defaraat seen jikko yi te loolu lu jamono bees bees bees bees dañ koy soxla problème bi kay li ciy des mooy yan moo bees ci jikko yu yàqu yi nga indi ko comparé ko ak jikko yu yonent bi yu baax yi tey jii fi mu nekk nii boo jëloon lewet fi nekk nii lewet mën na defar lu nekk ci diggante bu nekk am na soxna si yonent boo xam ne lewet moo tax mu nangul yonent bi bokk ci jabaram yi gën ci jabar yi te moom juif la woon xeex am yonent bi gañe seen giir gi parce que ñoo tooñoon euh, yonent bi ñëw di leen yar ci ndigali yàlla bañ rey ca ñi ci rey jàpp ko ñu ko jàppee moom soxna sus mu nekk jaam nekk moomeel ci ñi nga xam ne ñoo gañe guerre bi euh, gaa ñi seetlu bu baax ne kii nga xam ne mooy soxna si taar bi mu ànd ak ak doomi buur bi mu doon su nee ci keneen ku mooy loxo yonent bi guerre mën naa judd lewet moo réglé keroog problème bi jikko boobu kon ku gàmmu si soxla nga ko ci nan bi yonent bi waxee soxna si ne ko yégal ci gëléem gi mu ne ko man mënumaa yéeg gëléem ndax man li ma xamoon mooy salon boo xam ne dañ koy defar def ci gët def ci ay musique ak ñuy xalam ak ñuy wëy ay waxambaane yëkkati ko ndànk teg ko ci kaw gëléem gi di wéyal gëléem gi pour bu mu waaxu bu yàgg ba di yëngal sama yaram kon man mënuma war gëléem ndax lii laa xam yonent bi comprendre ko yëkkati oomam teg ne soxna si dëggal fii soxna si dëgg ci oomu yonent bi daal di yéeg ci kaw gëléem gi biñ demee ba wéet mu ne ko yow biñ la sangee jébbal ma la da bañoon léegi deuxième fois lu tax nga nangu mu ne ko yow laa gënoon a bañ ci nit ñi ndax li nga ma reyal ak ni nga def suma giir gi waaye bi ne bi ma wonee bi ma la wonee sama situation ne man mënuma yéeg gëléem nga jël sa tànk bii teg ko ne ma dëggal bi ma ci dëggee bi ma buddee sama tànk bi la mbooleem mbañal gu newoon sama xol bi buddee ko loolu nag dafa bëri euh, euh, euh, jéggaleen fi yërmandeeng fi même Jibril pour ñu xam ne gàmmoo euh, jikko yonent bi amul jamono bu mën a ñëw bees ba soxla ñu yokk ko mbaa ñu wàññi ko mais jikko yi nu mu mën a mel jikko yonent bi mën na ko régler ndax jibril ci boppam malaak yonent bi euh, jibril laaj na ko ne ko yow euh, yonent moo laaj jibril ne ko ndax man dañ maa yónni pour yërmande ndax yow am nga yërmande sama yërmande ji am nga ci wàll mu ne ko man jàpp naa ne maa ci ëppale yonent ne ko ci nan mu ne ko bi yàlla bindee aadama samaam ne nañ ko sujjóotal malaaka bi dàqoon a sujjóol dàq gën a jaamu yàlla bañ yàlla nattoo ko def ko seytaane def ko iblis rëbb ko ba moo gën a yées ci mbindeef yi keroog laa tiit ragal loolu dal ma tiitaange googu sa yërmande moo ma ko dindil ndax benn aaya moom la ma yàlla jox na naa la ko indil ci alquran daal ne ko di quwwatin inda dil arshi makiin borom yow mu Jibril place bu kowe nga am ca sa borom mu ne ko keroog laa soog a dal ne li dal Iblis du ma dal kon sa yërmande yaatu na ba daj na malaaka daj na rab yi daj na lu nekk kon kooku lu gàmmu évolution lu mu am am am jikko yooyu waxtu wu nekk soxla nañ di ko jox nit ñi ndax crise de valeur lu mu bëri bëri bëri yonent bi am na ci ay jikko yoo xam ne buñ ko tegee rek solution am. en tout cas am na solo leneen li nga xam ne bëgg naa ñu ñu ñu gàmm bu jotee gis nañ ni fii maa ngi koy wax tout à l'heure dinañ fi gis façon nit bu nekk xeet bu nekk bàyyeekoo bàyyeekoo ci ci ci réew bu ne tey loolu day tax ñu dem taxawaat ci dimension wu Baye surtout côté international lan la fa liggéey loo xamante ni. tey dinañ ne euh, li moo indi lii tey parce que quand même liñ fi gis ci ay nationalité bëri na lool. waaw xam nga olof dafa am lu wax mu ne lu yëngu li ko yëngal moo ko ëpp doole. baay dafa nekk may yàlla boo xam ne bu foor la ndax te ay mbiram amul dara lu làmbatu wala loo xam ne loo koy ooteel wala ngay lii daf maa neex mooy suma sëriñ déedéet yëpp ay argument la ak ay document yoo xam ne yu leer Cheikh na Ahmed Tidiane mi nga xam ne mooy borom tariqa bi moo waxoon ne tati faydatun ñëpp mokkal nañ ko am na fayda buy ñëw sama gannaaw su ñëwee dana ñëw ci jamonoy xat-xat waaye bu fayda boobu ñëwee li nga xam ne mooy dugg tariqa tijaan danañ ci dugg ay vaggi vagg maanaam comme niñ gisee ci baay su boobaa loola dana am loolu nag dafa joxoon ay critères yoo xam ne kàngam yépp ci tijaan yi ñu ko doon fuuglu ki ci gën a ràññeeku mooy xalifa bu mag bi nekkoon Chinguit Mauritanie ñu koy wax xaaj Abdullah Wulul Xaaj moom mooy xalif général de Tidiane ci biir Mauritanie ci jamono bi bàyyi di feeñ. Mm. te moom moo gis ne li Cheikh na Ahmed Tidiane diggee woon muy fayda boobu nga xam ne bu ñëwee dana daj àdduna bi yëpp ak tariqa bi te su boobaa itam xam yàlla dana yomb su boobaa moom mut ko fuuglu ba foog ne moom moo ko moom moom Haj Abdoulaye Wulul Haj mooy bàyyi Mouhamadul Michri mii ah, Haj Wulul ba mu jaral ko mu du demee ba am màggat 70 ans gis ne mi ngi waaj a dem te gisagu ko te foogoon na ne moom la dafa dugg xalwa bi mu duggee xalwa 40 jours yàlla won ko kéemtaan kéemtaan bi mooy lan mooy mu gis euh, benn projecteur bu jógee ko asamaan amee xet goo xam ne leeraay boo xam ne mosu koo gis xet goo xam ne mboolem laj kaloñ yëpp a ngi ci ba pare te mboolem baati si kër yi ak daaj yi ñu ngi ci te benn jaxasoo sa morom mu alaw la ut si asamaan moom naar bi de shérif bi te daf koo bind nee na bi mu ñëwee ba jub suuf mu soppeeku ceeno or bécceeku samp ay reenam def garab daal di joxoñ bànqaasam yi ci cinq continents yi meññ meññet mu neex mbooleem li yàlla bind yéeg ci di lekk ci meññet mi te garab gi feesut garab gi rasu nekk nit ku ñuul mu jóg nag daal ne gindeeku na ndax dafa foogoon ne der bu weer la te woykat bi noonu na baraaya bi làmboo palmaan bi moo indi ngelamaan kiy may ku weex mooy wax may ku ñuul xàmmewut leen ndax yonent bi nee na ki gën a ragal yàlla moo gën a for ci yàlla du der du melo mu jóg ñëw sow fi nit ñu ñuul ñi nekk tariqa tijaan fi mu gën a bëri te mooy Sénégal mooy sow di ko wër di wër fu mu dem critères yi mu gisoon du ko gis bi mu ñëwee ba Kaolack ñu dalal ko foo xam ne tàngoor ba fajar jot boori 4 heures de matin mu jóg ndax ñëw na sax ba Tëngéej bëgg a dëpp am déception li doon wax ak moom ne ko Kaolack la bi mu ñëwee di doxantu ci fajar gi gisaat leer gi. mais leer googu yoon bi dafa nam defoon dafa dal ci tiwilu maam alaaj Abdoulaye bi mu jógee ko ci kaw dafa dal ci tiwilu maam alaaj bi la foddat daal di jëm si fii miri na ci àll bi ay tilla fi ne woon ak lu ne mu fees dell garab gi leer naar bi di jonkan di jóg jonkan di jóg mais loolu kooku mooy bu murtani xalif général bi nga xam ne moo nekk Fass te mooy sukkari ju te képp kuy tiijaan yaa ngi ne ngeen am lettre bu jógee ko ci moom moom bi coow li jógee ba kooku wane ne bàyyi moo amee mbir yi na ne ko yaa ko tikk ak sa loxo yaa amee xaqiqa bi ku ko amee ku ko wax rek day wax day waxantu waaye yaay boroom man nag maa toog ci seesu xilaafa bi waaye yow yaay boroom moo tax bàyyi yëkkatiwut loxoom wax la muy wax lu mooy bi ñu tàggee góor googu keroog biñ ko tàggee fekk mi ngi sikkaral xalifaam bu mat xalifa baayam ba may bay xalifa ba keroog bañ waxee ne tàgg naar bu naar bu uh, uh, am solo shérif bu mag génn na àdduna te mooy waa jooju ko waxoon na yaay borom waaye maa toog ci seesu xilaafa ci la yéeg ci kaw taabal bi wax wax boo xam ne kenn mosu koo wax te ba léegi kenn du ko wax te kenn ñemu koo weddi mooy euh, képp koo xam ne boo daje woon ak Cheikh na Ahmed Tidiane boo ñëwee loo ko laaj boo ma ko laajee ma jox ma ma tontu la képp koo xam ne boo daje woon ak Cheikh na Ahmed Tidiane loo bëgg mu xamal la tey boo ñëwee ma xamal la ko yàlla maye na lu ëpp loolu yàlla maye na tey ci man sa borom a ngi ci jàkk ak janoo ci lu duwut benn lënt te fii ba bëfta bi wël kenn dootu fi ommat kenn defal ko lu mel noonu lu mooy ku jaar ci man mbaa ku jaar ci ku jaar ci man loolu bu fekkoon politique la konoon conférence de presse yi bëri na ba mu ko waxee ba léegi kenn ñemewut xalifa gu mag gi nekk fas nag moo ko seddeel ndax 1939 45 bi bàyyi gisee ne safara saa ngi sotteeku ci kaw àdduna bi mu gis ne am na fu mu uutu mbindeef yi jumaa ju njëkk ji dañ fi daan jàng ay dog def contre attaque ñu won ko lu leer ñu bind ko leetar Cheikh na Ahmed Tidiane moo yónni xalifa ba nekk ci Faas seen ni ñuy jokkoowee ñoom xam nañ ko ne ko waxal Cheikh Ibrahim ne ko ñëw di ñaan arrité guerre mondiale ndax boobu dafa décidé dem Faas ndax gannaaw li ma doon ñaan nanguur suma sëriñ naa fa dem Cheikh na Ahmed Tidiane mu ne ko wax ko ne ko loolu di mission mission mooy mbóot mi mu amee te moom rek moo ko war a amee te keneen du ko amee mu toog tisaare mbóot moomu ne ko ajjil xuduumaka yaa aba isxaaq yaa waarisa sirri bil istixqaaqi fa sirru lan yaxmilhu gayruka fii huna fabqi hunaalika wasqihi ya saaqi xalifa général de Tidiane ci Faas Sukayri ci année 30 yi moo jógee ci nelawam daw ba ci xabru Cheikh na Ahmed Tidiane mu xalangu caalit ne ko jox nga Cheikh Ibrahim loo xam ne mi ngi ko tikk mu wóor ko te ñu mboolem aktaab yi nga xam ne ñoo jàpp ci yow wuñ ko sax waaye maa ngi lay wax ne la mosal ma daal ne ko xad naa la min ka abu isxaaqa umniyatan fi yaqzatin lam yanalha gayru fi naw mi bi amul euh, jafe-jafe ñu nangul bàyyi moom moom moo sos lu ni mel wala bokk li nga xam ne moom moo de mandarga yi Cheikh Tidiane doon euh, annoncé tey moom lañu ñu retrouver ci moom est-ce que am na jafe-jafe. jafe-jafe bu baax bu baax. parce que ndono li la yonent bi di euh, treize ans la taxaw Màkka di wax ne yàlla kenn la ay baayam ak nijaayam ak ay baayam ak euh, mbokkam taxaw ne ko waxoo dëgg danga nga fa dof ah, ki nga xam ne mooy Abu Jahl euh, Abul Hakam dégg nga gën koo jege ci baay fukki at ak ñett lañ ko opposé ba nim génn Màkka kenn gëmu ko te moo amee woon dëgg Cheikh Ibrahim moom itam bi mu nekkee kër baayam yàlla joxe lu mel nii te foofa xalifa nekk fa te matee ko sëkk loolu moo tax dafa gàddaay ñëw sanc fii Médina te itam fee nga xam ne mooy Nigeria bañ ci jotee te foofu dafa am dañ fóode ay téeméeri téeméeri at la waxoon ne am na ku ñu wax Ibrahim borom bët yëkk yooyu yaayam tudd Aïcha baayam tudd Abdullah dana fi ñëw te bu ñëwee toj Nigeria te booba eh, mën na am sax baay bàyyi ju doogut ñooñu di nekk loolu keroog bañ ko gisee dafa am ay argument yu leer li ngay wax jafe-jafe am na euh, buur kënu moo dajee ak Baye 1937 ñaanoon ay ñaan ñëpp dégg nañ ko bokkoon na ci su ma nekkee buur mooy nekk buur bi njëkk aji su ma demee dajeeg boroom jamono dem dajeeg baay naan ko ndax yow la sëtu imam Chafi nga xam ne moo gën a rëy kaala makka moo sukkoon ci ron baay baay jox ko mu xadd def ko mu xaddam dégg nga mu nekk taalubeem kooku moo dimbali buur kënu ne ko sëriñ bi jàppale ko kii li muy laaj xam na ko baay soo ko wax ak buur kënu dégg nga moo 40 personnes yi mu àndaloon dégg nga léegi nag buur kënu bi mu ko invité jafe-jafe bi ngay wax am na ndax baay bi muy dem soo gisee photo bi ci yundum aéroport Gambie mi ngi ree amee espoir boo xam ne ku xam li nekk sa diggante ak sa borom ak fa nga jëm rek moo koy ree ndax avion amut Ah, temps yi guerre la avion bi dafa wàcc par hasard ñu ko ba nga amul kii dawal ak ki koy dimbale mu ne leen ma la ngaa mu mbaa ma toog ci ay ay bal la wala lan la mission amul taalu bi amul doom loolu la wàccee Nigeria jafe-jafe bi nag mooy borom xam-xami Nigeria yëpp dañoo wax buur bi buur bi dafa caalit bi mu gisee baay dafa summi dàllam yi summi mboolem darajaam yi looloo taxoon ñu ne ko duñu la dalal fu moy ci pale bi ndax caalitu buur warta génn léegi nag boroom xam-xamu Najeriya ak kaala yu rëy yooyu yëpp nga xam ne Cheikh Umar Fuutiyu dem na fa Abdou Qadir Jeylaani taalibeem yaa ngi fa alquran a ngi fa sunna a ngi fa lépp a ngi fa ak borom xam-xam yoo xam ne kenn xamul lu ñeem ñooñu mënuñoo tëb nangul baay dañoo wax buur bi ne ko may ñu ñoog sa gan gi ñu def face à face téere bii mu indi ak lim ci wax ñu dóor ko ay question mu tontu ñu bu paree ñu nangul ko mbaa mu abal ñu ñu ju gee ñu ñu xale yi ñu leen. ba fajar xar question bu ñu indi bàyyi tontu question bu ñu bëndi bay tontu ba bàyyi commencé di leen jox yeneen question yoo xam ne moo gën a xóot seen yos di ko tontu ba mboolem ulamaawu Nigeria borom xam-xamu Nigeria yëpp ubbi seen kaala teg ci suuf nangul cheikhul islam Hadj Ibrahim te ñoom borom xam-xamu Nigeria kuñ nangul Nigeria danañ la nangul Nigeria kuñ nangul li ëpp ci Afrique danañ la nangul looloo tax mu dale woon foofa parce que may gi moo yem noonu. yéeme la dañu dañu def gis ay xeet yoo xamante ni euh, lu ci yéeme mooy bokkul euh, ñoom dañu am seen ay gëm-gëm dañu am seen ay religion yoo xamante ni xëy na euh, bokkul ak l'islam sori na loolu. c'est mu doon yoo xam ni kàllaama bi itam bokkul ak bi nga xamante ni moom moo universel wala bokk yoo xamante ni neex na communiquer dans ce cas ñu bëri dinañ laajte naka la bàyyi doon communiquer ak xeet yu mel noonu comment comment quand même la dem ba parvenir. à pouvoir jël lu bëri ci xeet yooyu noonu daal di leen euh, indi ci fayda. xeet yu bëri ah, voilà gis nga ki doon traduiral baay dégg nga baay bi muy wàcc tamali juróom benn junne di jël tariqa tijaan ba consul général bu London. di ci def rapport ba di ko wax ne ko xam nga ñaata ñoo teyoon sa jataay bi keroog ki doon traduire baay arab lay wax ki doon traduire fi mu nekk nii juróom-ñetti nit ñooy taxaw. kenn ku nekk ak sa làng su bàyyi waxee araab kenn ku ne wax ak sa ñoñ mais wax bi dafa ànd ak ndigal am nga baay lim amee am na ci tur yoo xam ne baayam bi mu juddoo fi la ko fekk am na ci ay mbóot yoo xam ne baayam bi mu juddoo fi la ko fekk am yoo xam ne ñu ngi ko lal fii marché Kaolack mu dend ak tamaate ji yàgg fi lool waaye li ko uuteel baay dafa am ndigal ah xad euh, jaa anil iznu bi dooni wax mi wal abdu qad laqiya aynal ilmi wa jaahu al iznu bi doonil wahmi wahmi man damaa dajeeg jëmmi xam-xam ba pare am ci ndigal ndigal loolu bërki démb ci kanam xalifa bi Cheikh Mamadou Mahi Ibrahim ki ma lay wax mooy élimaanu Muhammadiya ci Murtani xam nga lu ma nettali nettali ko xalifa bi maa ngi toog photo ma ngi nii ci tal ci kii bi ci suma téléphone mu ne benn xaritam moo ne ko kaañ dem nuyu ji bàyyi pour nga xam communiqué communication borom digal nan la mel mu ne boobu bàyyi ngi kastoor ci këram bi ñëwee taalibe baay bi ne ko kii de sama xarit la maa ne ko nañ dem nga xawal sama sëriñ bàyyi na ko jàkk ne ko jox naa la wirdu tijaan waa ji ne ko nangu naa ñu jóg loolu tàkkusaan la bi ñuy julli timis mu taxaw ci gannaaw baay baay am na bu jullee timis ak bu jullee suba am na lu muy jàng di joxoñ sept coins yi penku xarfu ndeyjoor càmm gannaaw ak ak ci kaw ci suuf baay bi mu joxoñee ci kanam fekk waa ji moo ko féetee gannaaw bi mu joxanee ci gannaaw waa ji dafa yuuxu ñu ubbil ko mboole mbóot yi nga xam ne gaa yi moom lañ doon wër ci ñeent fukki at bàyyi jox ko ko ci joxoñ ci benn baaraam kooku lim amee ndigal la moo tax moom la nit ñi xam te ku mu ko jox da ngay amee ndigal loolu moo fi indi nit ñi moom la ñuy ut si te diggante kaw ak suuf amul feneen fu mooy fii looloo tax àdduna bi ñëw fi. ñu gis euh, yaa ngi ko doon wax sànq ci say kàddu euh, que ni euh, prédiroon nañ ko ki nga xamante moo di Cheikh Tidiane. lu jëm ci wérd bi ak surtout engouement bu mu nar a am ci ay jamono lu ci mel ni jamono yi ñu nekk tey bu ñu gisee ay ay ndaw yu bëree bëri ñoom ñoo ëpp ci li nga xamante ni ñoom ñoo daal di euh, soobu ci fayda bi est-ce que mën nañ expliquer un peu euh, lan moo waral tey surtout jeunes yi gën a am euh, boobule attachement ci ci ci wérd bi. waaw li tax jeunes yi li tax jeunes yi man sama réponse mooy jeunes yi internet bi. yeewute bi adduna bu ubbi bi hmm. fi mu nekk nii amul dara lu umpi dara dara umput jeunes yi fi mu nekk nii même ku ñàkk sax boo bëggee ne ñàkk kersa da nga janoog moom yépp a yomb xam ba des lenn kan mooy sa boroom am koo xam ne boo ñëwee mu ne la danaa la yóbbu ba nga ne jàkk ak moom ma ne la sa borom a ngi ci lu dowut benn lënt hmm. te kenn du la ko defal ku mooy man mbaa ku ma jox ndigal looloo tax jeunes yi biñ xamee ne li bàyyi amee ndey du ko joxe bàyyi du ko joxe amul université amul ci benn site internet looloo tax ndaw yëpp bëbb ba Singapour ba fi nga xam ne mooy Trinidad nationalité ngay wax dagg fi gis ba gis fi loo foogul gis naa fi koo xam ne ci kër Cheikh maa ngi si sa porte parole muy jooy di di jooy pour ñibbi ma ne ko lan la mu ne ma li muy ñibbi da lay jooy te kooku ma nga fa bàyyi ndey ak baay bàyyi fa compte banque bàyyi fa teraanga bàyyi fa climatiseur loo xam ne xamul fen waaye dafa gis loo xam ne moo gën a neex loolu mooy àjjana ci kaw suuf te fii la ko amee. macha allah bu ñu ñëwee ci euh, këru diine yi relation yi nga xamante ni Baye amoon na ko ak euh, autorité mu nekk ay autorité politique wala religieuse wala mu nekk ay autorité euh, coutumière naka la demee woon dañuy taxaw si bu njëkk ci këru diine yi ban relation la Baye amoon ak xalif yi nga xamante ni fii lañ nekkoon. bu gën a rafet ndax boo njëkkee Touba. Hmm? am na ñun Baye jàngale na ba 73 di tëral leçon nii imaam Cheikh mi ci mujj jàngal la bëkk néegam bi ñuy wax Isaaqa man moo ma daan ubbil ku ñuy wax Seydil Arabi ak doomam bi ñuy wax Muxtaar daan nañ ko tewee am na doomu sëtu sëñ Tuubaa boo xam ne dañ ko waxoon ne ko ku niroog maamam la bu ñëwaan ci sées ba la koy teg sëñ Moustapha euh, relation am nag ak Touba mi ngi dalee ko ci sëñ Moustapha mbaki ndax moom benn tàkkusaan muy jàngale wax na ne moom ci kaw suuf mas ta daje ak sëriñ Touba te mosu koo gis te wax na ko sëñ Mbàkke Bousso bi mu fi ñëwee mm. te loolu mooy dëgg mooy sëñ Moustapha Mbàkke la njëkk a giseet kër góornoor ca euh, Saint-Louis fa lañ daje baay ak jëmmam ji jëmmam ji day tasaruf xol yi bañ janoog moom comme ni ko waaj waxee vraiment ku neex a bëgg la sëñ bi itam ku xam nu muy bëggee la ba mu ko gisee nii laajte ko ñu ne ko kii mooy Sidi Ibra sëriñ bi ci kaw la mu ne kii de sopp naa ko toog den ak moom relation comme continué ca ba mu invité Baye Touba Baye invité at ko fii keroog ci kaw jumaa ji néeg boo xam ne ci la Baye doon duggee xalwa fa la ko dalal ne ko bi ma xamee ne yaa ngi ñëw fi laa dalal am na kàddu yu am solo yu jaar seen diggante yoo xam ne yëpp kenn ku ne nangul nga mm. li sa moroom li ko yàlla may te laalu dara ci may ki sa moroom mm. loolu moom la sëñ Fallou continuer ba foto boobu mu lëngee bàyyi di ree man sëñ Baara moo wax ci làmmiñam ma dégg ne film boobu maa ko filmé mu ne moo ko foto ñu ne ko fan la mu ne marché Ocass bi ko papaam tabaxee ba mu bàyyi la defoon invité d'honneur soo ñëwee ci sëñ Abdou Aziz Sy baax looloo tax itam gaynde faat ma baayam moo ko boole woon ak baay sëñ Abdou Lahad mi fi nekk ba léegi dafay ñëw fii seet si na fi sëñ Cheikh te loolu mooy continuer ba léegi moo wan li gën a rafet mooy ñaari xari tabaski yi bàyyi daan tabaski sëñ euh, euh, ki nga xam ne mooy gaynde Fatma moo ko daan indi dégg nga mm. bi baay génnee àdduna xalifaam alxaaj Abdoulaye di ko delloo gaynde Fatma gaynde ma génn àdduna sëñ Mbàkke sëñ Mbàkke soxna loo delloo si at ko lu gën a rafet loolu sëñ ci soo demee Tiwaawan ñëpp la amoon ak jàmm euh, sëñ Abdou Aziz moo ci raw ndax man bés xalifa bi xaaj Abdoulaye Ibrahim nee na ma tëjal ma bunt bi tegal ma xale ci bunt bi ndax buñ fëgg tension bi xam nga seen euh, euh, euh, jafe-jafe yi ñuy nekk ak nit ñee kër kër ji pour bëgg a noppalu waaye day të man maa dëppaat fëgg bunt bi mu ne ma lan la ma ne ko ah dama fekk lu ma doole ci bunt bi mu ne ma lan ma ne ko sëñ Abdou moom laa moo taxaw ci bunt bi di laaj ndax yaa ngi fi mu ne ma jox ma sama manto loolu danañu yëkkati ñun ñëpp. Mm. ñu ànd dugg fii ci jumaa ji julli tàkkusaan ba pare xam nga lu sëñ Abdou wax daf ne ko. pour nga xam relation bi ni mu rafetee ne ko de sama digganteeg sëriñ bi dafa xóot ba nga xam ne tey bi ma buggee deyaar fi pour ziyaare ko dama noon du ma déranger kenn damay yoot ndànk ba àgg mais bi ma demee ba jub xabru baay bi waxu si di Hadj Malick poñe ma radiyallahu anhu dafa wax ne wëliyu moom nag ratt ñooyem soo buggee mu jël euh, euh, tam bi fees nga mën a ratt dangay jël doom ji nga yeew ko ci tànk gannaaw mu ne ko looloo tax ma ñëw taxaw sa buntu kër laajte ndax yaa ngi fi te kilo o su ñëwoon ne ma nekkoo fi tey bañu seen laay ñëw tey du ma dugg ci xabru baay te ànduma ak yow. Mhm. déglu ko sëriñ bi yow tontu ndax yar bu kowe mu ne ko man dama nekk su ma néeg ñu ne ma kaay uyu sa baay ci loolu laa jógee ndigal loolu ci laa jógee ci loolu laay ànd ak yow ci xabru bi sa digganteeg bàyyi xajuma ci. Mhm. dégg nga soo demee xalif général bu tabax jumaa ba mu pare nga oo beneen xalif général ne moo koy ubbi loolu laayeen rek la am. sëñ Issa moo ko defal. dëgg la loolu ça montre que ni euh, en tout cas. te woon nañ bu baax a baax. ay non non bu canaba. Mm-hmm. bu canaba moo teg fii tànkam. ne ko sëriñ bi bi ma jegee canaba bi ma damaa fee amoon amoon raag wéré dëgg yaram bi ma yëkkatee sama tànk laa commencé yëg wér bi ma tegee sama tànk laa ne pelek bàyyi na ko jógal taxaw ku la gis dem aljanna. ñu ngi toog. mais mais ku xool diggante 1900 jàpp 1975 euh, foofu euh, vie politique bu Sénégal. Mhm. yëngu yëngu woon na loolu. te te te foofu bàyyi itam am na ci lu mu fekkee ci ci ci euh, mel ni reñu Senghor et tout ça am itam lu xewoon ci seen ay diggante. bu baax est-ce que mën nañ ci dellu si waat. waaw Baye loolu boo ko bëggee gàttal danga naan Baye Baye ak Lamine Gueye dañuy xëccoo. ku ne am parti ku ne bëgg gañe bàyyi na man du ma gis Mouhamadou Lamine di dem di woteel Diogoye Senghor mm. du ma ko def ndax ndono gi ma amee doon lu yonent yàlla Mouhamad li ma ci am ak doon Cheikh na Ahmed Tidiane loolu permettre mu may gis Mouhamad turu Mouhamad di ànd ak Léopold même su fekkee Léopold mooy gagné dégg nga de mm. man li ma lay wax ni lu leer la Kaffrine moo gën a tàng man sama papa moo seese woon Kaffrine moo fa seesoo Lamine Gueye moo ku ñuy wax Maslo ak ki nga xam ne moom la ñuy wax dëkk euh, euh, euh, dëkkab gisam dégg nga ak ki nga xam ne moom la ñuy wax mbay ñuqi ca fa nga xam ne fii mooy ci gannaaw Kaffrine ñooñ ñëpp dañ doon dañ leen di rey waaye li xew mooy bàyyi position boobu dafa nekk di boo xam ne lim gëm ak lim doon la ndax li tax mu wax wax boobu benn naar gannaar daf ko laaj ne ko yow li ñu won ci yonent yàlla Muhammad ak Cheikh na Ahmed yi ba ñun ñu dem ba ndekete dañoo amoon problème ci askan ak ak suñ deret yi waaye yow suñ loolu dindi nañu problème boobu bañ xam loolooy lan dootuñ ko tiitaroo danañ tiitaroo lu ko gën a fort mooy li ñu mais léegi suñ ngëlmaane mooy lan ci yow mooy yow lan mooy sa lan mooy lan lan mooy li nga xam ne lii mooy sa digganteeg ñaar ñooñu yonent ak Cheikh na Ahmed Tidiane pour ñu ñëw ci place bi mu placé pour mënta nangu yenn yi mu ne ko soo amee ñaari kaas yu fees te mënuñoo ñàkk bokk ci benn kaas waxuma ne da nga am kaas bu leen ëpp waaye il faut nga am kaas boo xam ne dana mat ñaari kaas yi kaas boobu la taxawee woon moo tax mu ne du gis Léopold di ànd ak moom te loolu nag dem na di dem di dem ba bés nangu nañ ay passeport am fii ci euh, aéroport waaye dafa yéeg avion bi ne xanaa xamuñ li xew ku ñuy wax baabu Diagne nekkoon directeur Air France bu amee aj yi moo ko nettali Baba Lamine invité ko fekk maa ngi ànd ak moom mu ne keroog góor gi dafa jóg dóor ba dóor dóor dóor dóor dokkam commandant bi téye woon passeport bi sëñ aadi moo keroog moom la àndat mu ne ko dañ ko téye mu ne ko xanaa xamuñ li ñuy def mais heure boobu Senghor gis na ne beneen temps bi moom mu juboo moo ko gënal mu defar passeport mu fekki bàyyi loolu am na euh, tukki bi nga xam ne moom la doon tukki ci fi nga xam ne mais avant loolu euh, bàyyi dafa jaaxaloon politiciens yi ak borom daraja yi ndax yàlla daf ko joxoon ci daraja ak li nga xam ne lii mooy relation ñu bëri dañ ko fiire woon est-ce que xam nga ne De bi mu fi ñëwee 58 di demander pour ñu wote référendum constitution bi bi mu demee ba yuuxu nous voulons la benn l'indépendance ci place de l'indépendance ak pancarte yooyu nga doon dégg De bi mu demee ba ca fam dal dafa ne xanaa Ibrahima Niass nekku ñu ne ko mi ngi fi mu ne dama ko bëgg a gis xam na li tax ndax bañ ko dàqee ba ba Hitler dàqee ba ko dàqee France mu daw dem Angleterre di uti ndimbal ci ay nijaayam fii la jaar Gàmbi gise ak Baye sukk Baye ñaanal ko moo tax mu laajaat ko Baye ñëw mu ne ko dama bëgg ñu wote constitution bi déglul bu baax de. Mhm. Baye na ko Baye du sëriñ bu ñuy dicté wala politique seen ko lii laa bëgg nga def ko mu ne ko est-ce que buñ ñun bu ñu wotee wuy tey. gannaaw bu ñu seetee ne suñu intérêt te danañ ko seet ndax buñ buggee woote noo ëllëg sañ nañoo woote noo mu ne ko bu baax mu ne ko bàyyi na ko danañ ko woote keroog gàmmu ak jamono li ngay wax dafa ñëw ne ñun duñ noonoo duñ woote noo dañuy fanaana wuy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba bët set ñu dem woote wuy bind mboolem muqaddam yi leetar bi déglul mu ne eh, baada muqaabalati li rais Euh, général de Gaulle. Mhm. wa euh, ministre euh, Bernard Cornut-Gentille moo amee woon d'outre-mer wa baada mutaalati ala dustuur gannaaw bu ma liiree man constitution bi ba xam li ci ne daje ak de Gaulle daje ak Bernard Cornut-Gentille ci la bind leetar jël xadis yonent bi teg mboolem muqaddama mi nekk Afrique yëpp francophone ne leen wote leen wuy ci constitution bi nga xam ne mooy référendum bu parce que ci la intérêt nekk ndax yonent bi sallallahu alayhi wa moo wax ne suñ la ubbilee buntab yiw gaawal dugg ndax xamoo kañ lañ koy tëj te c'est vrai loolu moo doon buntab yiw ndax la ca génnee mooy euh, fédération Mali euh, mm-hmm. indépendance am te benn deret tuuru d'accord waxtaan bi doyaluñu mais waxtu bi moo ñu xaw a xooj ndax dañ kii dalal kii di Seydi Aliou Cissé moom it fas yéene ñëw rek euh, waxtaanal ñu ci li nga xam ni moo jëm ci euh, ci gàmmu gi ñu ngi lay remercier bu baax a baax euh, agoo ci sant oustaz Baye Mar oustaz moom la ñëpp xam d'ailleurs merci beaucoup di la jaajëfal bu baax a baax waxtaan bi am na solo doyaluñu mais dinañ amaat yeneen occasion pour pouvoir gën a amplifier li nga xam moo di waxtaan bi Euh, tout de suite dañ fi fas yéene dalal ki nga xamante ni moom moo di euh, Seydi Aliou Cissé moom it euh, ñu fas yéene waxtaan ak moom ci lu jëm ci gàmmu gi ak lépp lu nga xamante ni rek moom la ci bàyyi santaane rawatina sant ko ñi nga xam ne ñoo fas yéene rek nekk fii ci Medina Baye di rappeler que ni ñi ngi fi ci Medina Baye donc ci mosquée bi di fi rek def li nga xamante ni moom moo di. Euh, plateau comme programme ni leen koy dégtalee at bu jot léegi léegi ñu fa yéene fee dalal euh, Aliou Cissé ñu def benn pause dellu si ci kanam.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 عليكم من كل خلق سلام ضعف خلق الله طول الليالي وعليكم من كل خلق سلام ضعف خلق الله طول الليالي جاء بشمعة أنيفة بيضاء دين إبراهيم جديد سقالي وقبيل الإديان عام ضلال لست تدري محرما من حلالي حرفوا ثم بدلوا وفتاوي شيخ إبليس حكمهم في الفعال خابطا مثل خبط عشواء في الحكم فتعصى لذلك المضلال ثم دام الشكوى من أذاهم فجاء غير رجالي راقبته خديجة إذ رأت في نومي بدرا طويلها باتصالي voilà ñu dellu si ci plateau spécial bi nga xamante ni moom lañ leen jagleel ci veyu euh, gàmmu bi ñaareelu pàcc bi nag dañ ci dalal kii di Seydi Aliou Cissé moom nag mu xadam la féete fële ca Dakar bokk ci rek ñi nga xam ne ñoom ñoo teewee tey euh, bésub euh, gàmmu gi di suba moom ñu ngi fi jamono ji loolu nag moo waral ñu daal di koy dalal ci euh, plateau bi fas yéene waxtaanee ak moom itam. ci li nga xam ne moo jëm ci jàngale bàyyi œuvre ak lépp loo xamante ni euh, bàyyi na ko fi di ay liggéey ak santaaneem itam surtout ci jamono ji nga xamante ni rek euh, en tout cas réew mi ak àdduna wër nga këpp ñu ngi ci yenn jafe-jafe lié ak euh, yenn ci ay domaine ak secteur ci àdduna bi loolu lépp lañu fas yéenee waxtaanee ñu ngi leen nuyu sëriñ bi di la dalal ci plateau bi. alhamdulilah aouzu billahi min ashaitan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillah wa radiyallahu an ashaab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala hawla wala quwwata illa billahi al maa ngi lay delloo nuyu soxna Aysu maa ngi ko doon wax tout à l'heure euh, na ay euh, jàngale yoo xamante ni bàyyi euh, jàngale na ko bind na itam bàyyi ko fi surtout li nga xamante ni moom moo jëm ci nit ki wareefam ak comportement wam ak nekkinam ci société bi bokk na ci téere yu gën a siiw di ruhul ëdëb tey buñ ci taxawee lan la bàyyi jàngale ci jamono ju mel nii bëri na ci loo xamante ni waxoon na ko mm. euh, tey lan lan mooy li nga xamante ni tey euh, mën nañ ni euh, doomu aadama yi war nañ tënku ci téere li nga xamante ni moom la bind bàyyi ko fi. waaw maa ngi lay delloo na yoo di nuyu waa 2STV yëpp di nuyu seen patron El Hadj Ndiaye ak soxnaam soxna Marème di nuyu mboolem àdduna bi ñuy sifur di nuyu tamit alxalifa Cheikh Mahamadul Mahi xalifatul am li taifatu fayda tijaaniya di nuyu imaamul akbar Cheikh Ahmad Tidiane Seydi Ali Cissé di nuyu kilifa yëpp. laaj bu am solo nga laaj <clears throat> mooy jàngale bi nga xam ne Cheikh ma jàngale na ko rawat na téere bi nga wax muy ruuxul ëdëb di téere bi nga xam ne téere bu am solo la lépp luy jëriñ rek waxuma sax mbiram taalibe waaye lépp luy jëriñ mbindeef rek bàyyi bind na ko ci téere boobu waaye daf ko doon euh, jubluwaayam dëgg ci téere bi moo doon jàngale tariqa tijaan ak njëriñ li nga xam ne tariqa tijaan am na ko ak cëslaayu tariqa bi ndax mbir mu nekk balaa nga ci dugg war ngaa xam d'abord lan mooy lan mooy njëriñ bi ak objectif bi lan la. Mm. boo demee ci boppu téere boobu li mu ci wax mooy daw leen yéen ñëpp ngeen dàpp tariqa tijaan fal tumsikoo tariqata tijaani tariqa mahdul fadli wa ridwaani usisa bi sunnati wal furqaani daf ne mbindeef yëpp nañ daw dem jàpp tariqa tijaan mu mel dañ ko laaj na ko tariqa boobu ngay eh, ñaax nit ñi pour ñu jàpp ko lan mooy importance am mu ne parce que tariqa mahdul fadli wa ridwaani tariqa la boo xam tariqa yëpp am nañ gëneel bépp waliyu boo gis mu sos tariqa rek tariqa bi mu sos ci ndigal la ko sos ci ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ko sos waaye bàyyi na tariqa tijaan nag dafa sell ci ngëneel maanaam tariqa yëpp am nañ ngëneel waaye mahdul fadli la maanaam dafa spécial ci biir tariqa yi tariqa mahdul fadli wa ritwaan yi mu mel dañ ko laaj ne ko lu tax mu am différence ak yeneen tariqa yi lu tax mu gën a sell ngëneel mm. parce que bàyyi mu ne aussi sa bi sunnati wal furqaan yi dañ ko fondement ci alquran ak sunna moo tax tariqa tijaan moo ëpp luñ koy opposé ci àdduna bi moo ëpp attaque ci àdduna bi waaye ñi koy attaqué duñ mës a am ndam parce que lu tax aussi sa bi sunnati wal furqaani fondement wu tariqa boobu alquran ak sunna loolu mooy lim njëkk a bind ci ruuxul adab donc gannaaw loolu mu tekki ne yéen ñi jàppu tariqa boobu tamit pour ngeen jëriñu ci tariqa bi il faut ngeen respecte sarta tariqa bi. lan mooy charte yi bu ñu rappelé ko. waaw tariqa tijaan dafa am suratu ya am suratul kamal yi maanaam dafa am sarta yoo xam ne moom mooy wéral wirde bi mooy tax sa tijaan ya wér. sart yi nag bëri na dem na ci lu mat ñaar fukki sart dafay bëri waaye am na ñett rek yoo xam ne moo ëpp solo. Mm-hmm. yoo xam ne moo lay dugal ci tarixa tijaan moo lay génn ci tarixa tijaan soo ko nangoo ab tijaan nga soo ko bàyyee nekkatoo tijaan mooy tarixa tijaan soo ko jàppee doo ko boolee ak beneen wirdu mm-hmm. bu dul wirdu tijaan doo siyaare benn wëliyu siyaare pour mu yokk la ci yàlla waxuñ na doo ko siyaare en tant que jullit ak moromu jullitam loolu danaa ci ñëw pour indi ci leeral parce que bëri na ci li tax polémique yi bëri indi na ko. ndax dafa am confusion ci déggin bi. ok ok waaw dinaa ñëw moo tax ma ne dafa jar leeral. Mm. doo ko booleeg beneen tariqa doo siyaara beneen waliyu pour mu dolli la ci yàlla maanaam siyaara istimdaat waaye tariqi boobu soo ko jàppee doo ko bàyyi lu tax parce que alquran dafa wax ne waliyu foo nuzuruhum na ngeen matal li ngeen nazir ci yàlla yàlla kenn du jaayanteek moom di dellu gannaaw comme yow yaa jaayante ne man danaa jàpp tariqa bët bu set dinaa wax laa téeméer ci suba danaa ko wax ci ngoon danaa wax laa ilaaha illallaah ci benn lim danaa julli ci rent bi benn nga jaayante ko yàlla waroo jaayante ak yàlla di delluwaat gannaaw loolu moo tax ku ko jàpp bàyyi koy it doo ci jëlee lu baax mm-hmm. loolu moo tax boo ko jàppee doo ko bàyyi beneen bi ci des doo ko boolee ak beneen tariqa loolu lu neexal lay la yàlla benn buntu rek la am amul ñaari buntu amul ñetti buntu yàlla benn bunt la am ku bëgg jëruñu ci moom ci benn buntu ngay taxaw même soo doon ut dara tey ci wàllu àddina ci wàllu métier rek bu subaa nga dem jàngi mécanicien gannaaw subaa nga dem def menuisier gannaaw subaa nga dem commerce ji doo ubbeeku il nga taxaw ci benn métier yàlla ubbi la su dee jàng ngay def njàng moom boo ci sax yàlla fekk la ci wàllu yàlla tamit benn sëriñ ngay am ci benn buntu ngay taxaw pour yàlla mën laa jëriñ parce que yàlla ahad la kenn la moo tax ci benn buntu ngay taxaw loolu moo tax ñu ne doo ko boole beneen tariq da ngay même yeneen tariq yi ku ci jàpp sax nga yem fa kese di nga am dara donte nag may yàlla yi ñoom ñoom ñoo ëppante léegi ma ñëw ci li tax ñi wax ne doo siyaara beneen wali pour mu dolli la ci yàlla xam nga yàlla mooy def lu ko neex yàlla mooy maye te buy maye ay mayam tënkut ko yenentu yi yëpp yenentu yi bëri nañ mat nañ cent vingt quatre mille ci biir prophètes yooyu mu tànn ci vingt cinq ñaar fukk ak juróom ñoom la seen tur ñëw ci alquran ci biir vingt cinq yooyu mu tànn ci cinq ñoom la ñuy tuddee ulul asmi min rusuli yenentu bi sallallahu moo nekk ci kaw yente yàlla ibrahima yente yàlla moussa yente yàlla isa comme ni ko alquran waxee wa min qawmi nooy cinq prophètes yooyu ñoom la yàlla tànn ci biir sa biir ci kaw ci cinq yooyu yàlla tànn ci yenentu bi sallallahu alayhi wasallam def ko muy xayrul anbiyaay wa imaamul mursalin yenentu yooyu yëpp ci leeru yenentu bi sallallahu alayhi wasallam lañ doon fonctionné ñoom ñëpp ci leeru yenentu bi la ñuy fonctionné maanaam Ibrahima mënul compter sans Muhammad Insa mënul compter sans Muhammad eh, eh, dégg nga Noohun mënul compter sans Muhammad loolu coobare yàlla la xanaa doo laaj yàlla na ko pourquoi nga jël Muhammad jox ko pourquoi nga may ngëneel bi Muhammad te mayoo ko Insa xam nga loolu kenn sañu ko laa jàll mm. même yenentu bi ci dundam mas na fekk saxaaba yi toog di waxtaanee nii ni ngëneel yenentu yi di wax yenentu yàlla Moussa ak yet bi ko yàlla joxoon ak yet bi ni mu doon woon ne jaani jaani Firawna diggante mook Firawna karaam yi mu doon def di nettali yenentu yàlla Insa ku masa a feebar bu la raaya nga wér ku dee sax su ko neexee mu dekkal la ni mu dëddoo woon àddina di nettali histoire Isa yenentu yàlla noowoon ak gaalam yenentu bi fekk leen ñuy waxtaanee loolu yenentu bi na leen ñooñu ngeen di wax yépp suñ ma fekk waatoon fii ci jamono ñoom ñëpp taalibe la ñuy doon suñ ko defut du njëriñ. léegi ñooñu nga xam ne dañoo dugg ba pare. waaw euh, te respecté wuñu charte yooyu nga xam ni moom nga lim. waaw lan la leen tarixa bi di toppee. waaw waaw balaa ma ñëw ci loolu parce que dafa am lu mën a développé lu ma wiire fii yëpp leeral. dama bëgg a leeral lu tax ñu ne tarixa tijaan doo soo ko jàppee doo siyaara beneen sëriñ pour mu yokk la ci yàlla loolu laa bëgg a wax ne. Mhm. loolu maqaama Cheikh Tidiane la xam nga Cheikh Tidiane moom mooy aynul wilaaya bàyyi def na Cheikh Tidiane du la amriya haasa seyku aynu wilaayatin tafa jarat min bahri nu booti safiya maanaam bépp waliyu boo mën a dégg ci àdduna bi ñu nekk leer la ci Cheikh Tidiane radiyallahu su fekkee xam nga maqaama Cheikh Tidiane dëgg-dëgg mm-hmm. dégg nga donc loolu moo tax du du du jaaru ci xaqi Cheikh Tidiane wala ci orma Cheikh nga jokk ci moom dem di uti leneen feneen ci zahir rek nga am papa milliardaire ngay xëy di yalwaani loo ndekkee xam nga loolu cohérent eh. donc loolu la mel loolu moo tax ma ma ma war a yàlla mooy maye ni yàlla tànn yenantu bi ci biir yenantu yi mu gën leen ñëpp noonu la tànn Cheikh Tidiane ci biir wali may ko loolu. d'accord hmm, loolu laa leeral. voilà euh, je pense que leer na te am na solo hmm. euh, ñu leeral ko. Hmm. damay ñëwaat rek ci sama question wu léegi. parce que comme suite bi la euh, li nga xamante ni moom moo jëm ci charte yooyu nga xam ni. ki nga xam ni moom moo décidé dugg ci biir tarixa bi moom la jël te respecté wu ko lan la ko tarixa bi di toppee. waaw su ko respecté ak boromam la parce que mooy li ma la wax ne alquran daf ne wal yoo fa mm. engagement ku ko jël da nga koy matal même ci zahir nii rek tey soo bokkoon ci gouvernement président jël am benn responsable bu mu la responsable te te say yi nga jëloon nag moom respecté woo ko ay sanction moo la ci fekk mm-hmm. kon tariqa bi tim ku ko jël kenn leelu la lem kenn joxu la tàngal yow yaa yow yaa jël sa décision moo tax tariqa tijaan kenn du ci forcé kenn même sa doom bi nga jur doo ko forcé pour mu jël tariqa tijaan laa ikraa fi diin diina ci boppam kenn du ko forcé parce que bugguñu la forcer nga jël ko te ko respecté. Mhm. kon képp ku jël tariqa tijaan te respectoo ko sart yi ñu la wax respectoo ko ay sanction moo la ci fekk. waaw sanction yi bokk na ci mën nga mën ñàkk sa diina maanaam sa imaan woon mën na wàññeeku mën nga sax génn àddina fekk du ànd ak ngëm yàlla yooyu bokk na ci sanction yi. Mhm. wala nga jëkk alku nekkoon ci yoon bu baax. nga defee dem ci beneen yoon bu baax parce que da nga jaayantoo jaayantoo na yàlla ba pare nga nga nga mhm. donc loolu mooy li ci nekk. Euh, tey bu ñu euh, taxawee ci li nga xamante ni moom mooy ba tey ci crise yi nga xam ne dañ koy gis ci àdduna bi. Mhm. gis nañ fi ay crise économique gis nañ fi crise politique ba ci crise des valeurs. Mhm. loolu euh, bàyyi lan la waxoon ci ci mbir yooyu ak surtout bu ñu eggee si jamono boobu yu mel noonu lan lañu lan mooy taxawaayu jullit bi rawatina ki nga xamante ni moom moo di taalibe Baay bi. taxawaayu jullit bi mooy euh, tënk ci alquran ak sunna xam nga àdduna bi fi mu nekk nii solution bi yëpp mooy dellu ci alquran ak sunna même rôle adab bi ngay wax. Mhm. boo demee ba ci biir gannaaw bu ci bàyyi jàngale maqaama Cheikh Tidiane jàngale ci awraadu tariqa bi ak ngëneelu tariqa Tidiane yëpp même ci biir taali bi mu ngi leen di wax ne. Mhm. bàyyi leen garam place yi ngeen di toog la laa tax taran taxaadus al aqraani indal juloosi indoo yaafaani garam place yeeg weerante yeeg dàggisaante yooyu yëpp bàyyi leen ko su fekkee bëgg ngeen am seen càkkutéef ci yàlla. xam nga loolu message bu am solo la. Mhm. donc ñi toll ci jamono boo xam ne crise de valeur crise crise de valeur bi nag bokk na ci li ko indi maanaam nit ñi diina ji daanaka dañ koy jàng mais duñ ko pratiquer maanaam lislaam li mu santaane jàngale Yonent bi sa alayhi wasallam su fekkoon ne jullit ñi tënku nañ ci konoon tey nii jullit ñi mel duñ ko mel ci yàqante der ci wax lu la leerut dégg nga ci euh, ñàkk yéene sa morom jàmm. ci ñàkk sutura ci xaawante sutura surtout ci jamono jamono bi ñu nekk ak internet beeg yi ci aju yëpp soo xoolee crise de valeur foo ko natt romb na ko li ko indi yëpp mooy ñàkk a jëfee lislaam donc Baye Niass nag radiyallaahu anhu moom <coughs> solution la solution mooy lan mooy ñëw delloo nit ñi ci yàlla yaa ngi dégg. Mhm. parce que boo xoolee li ko li ko lim indi mooy xam yàlla xam yàlla mooy lan <coughs> pour nit ki. mën a xam min mindeef bi ci boppam mooy lan lan lan lan lan la ko lan moo tax yàlla bind la d'abord xam nga àdduna bi soo fi ñëwee war ngaa xam fi nga jógee war nga xam tim fi nga fi nga jëm fan la ak lan moo tax yàlla indi la fi. Mm-hmm. yaa ngi dégg loolu moo tax <clears throat> nit ki mënta jaamu yàlla fekk xam ko xam yàlla boobu nag tey nit ñu bari ñu ngi koy tuddoo mais fekkee dëgg la ci ñoom dafay feeñ ci seen comportement xam nga yàlla rahman la soo xamee yàlla il faut nga am rahman maanaam ra yërmande yàlla il faut mu feeñ ci yow. yàlla sutura la soo xamee yàlla suturaam foofu mu feeñ ci yow yàlla dafa màndu soo xamee yàlla màndu te yàlla boobu il moo il faut mu feeñ ci yow yàlla dafa sell soo xamee yàlla sellati googu il mu feeñ ci yow yooyu jukko yu axlaax yooyu yëpp bu fekkee feeñ la ci yow société bi yow foo nekk da ngay defar waaye doo doo yàq. mais bari ci ñoo xam ne boo leen waxee euh, lu jëm ci loolu dañ naan la. jàng alxuraan xëy na mbir mi dañ koy tënk ci jàng alxuraan rek doy na mm-hmm. parce que mm-hmm. l'idéal boo ko jàngee ba noppi euh, xëy na euh, yow en tout cas li nga li la waroon ci mm-hmm. sa euh, li li la war ci ay devoir envers ki nga xamante ni moom moo di yàlla suñu borom def nañ ko ba noppi lan moo waral bu weesoo alxuraan ñu ne dañu war a xam yàlla est-ce que foofu mën nañu expliquer un peu différence bi pour ñi nga xamante ni dañ jàpp ne alxuraan dong wàccee ko yegg carrément doy na alquran du dong alquran ay maratib la dafa am ay martaba alquran dafa am quranan arabiyan am quranul majid am quranul karim am quranul azim am na ñoo xam ne alquran baat bi rek lañ ci am jàng ko ni rek lañ ci am mais leeru alquran bi ci boppam wàccut ci ñoom loolu mooy suñu différence ñun ak saxaba yi saxaba yi soo gisee ñi meloon ni ñu mel lu ñu dogu yàlla def ko ku leen gis copier sa bopp ci ñoom ndax jukko yu rafet di feeñ ci ñoom parce da koy jëfee ba leeru alxuraan boobu day wàcc si yow même ku ci bu yonent bi waxee xadis dañuy kursu kan mooy njëkk a jëfee xadis boobu donc suñu waxee ne ja dèjà alxuraan am na xadis yi am na jullit baa ngi jàng alxuraan mu ngi jaamu yàlla d'abord ñu bëgg la waxaat na la xam yàlla mu mel ni danga bëgg wane foofu dafa mel da ngay laaj lan moo séparé alxuraan bi ak xam yàlla xam yàlla dëgg-dëgg mooy alxuraan waaye ndax ñëpp yegg nañ ci li ñuy tuddee alxuraan dëgg-dëgg gis nga alxuraan bii ñuy jàng ci téere est-ce que lii la mais alxuraanu dëgg-dëgg bi leer la kooku du ay kayit yu ñuy jàng du ay bàttami yu ñuy wax mais bii escalier la yoo xam ne soo koy jàng nga respecté ko li la aay di wax ci zahir sax nga koy jëfee daf lay yóbbu ci alxuraan yi dëgg-dëgg bi xam nga alxuraan c'est Ndeye Aysa moo ko firi Ndeye Aysa sa turandoo dañ ko laaj na ko mm. yonent bi sallallahu alayhi lan moo doon jukko mu ne kaana xuluqul alxuraan kaana xuluqul xuraan yonent bi jukkoo mooy alxuraan maanaam yonent bi xuraanan yem si alal ard alxuraan la juróon dox ci kaw daawut jàngal quran yem ci baati kese mais leeru alquran ci boppam moo wàcc ci moom muy def li alquran bëgg di bàyyi li alquran bañ loolu mooy loolu moo tax ñu alquran moo moo dafay dellu ci li ma doon wax sànq Sénégal fii nii dañuy wax quatre-vingt-quinze pour cent musulman mais musulman yooyu soo xoolee cinquante pour cent yëpp musulman non pratiquant lañ maanaam diine bi dañ koy wax nii rek xam nga diine du da nga juddu ñëw fekk sa baay nekk musulman rek nga ne julli laa baatu seede yi gis nga ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammad rasulullah baat moo ëpp daanaka li yàlla amal yépp mu ngi ci biir baat boobu mais wax baat bi ak dund dund ko ak sellal ko du benn juddu fekk sa papa yaay nekk jullit nga ne man julli laa loolu taxul nga nekk musulman dëgg-dëgg. Mm. maanaam baatu seede bi ni ko sa papa ak sa yaay di waxee doon ko dundee noonu yow noonu nga ko war a waxee dundee ko noonu ñu doon la jàppee jullit mais Sénégal fii ñu gën a bari dañuy wax jullit lañ rek mais jullit la boo xam ne booloo koog julli bu fekkee julli résultat wu julli feeñu ci yow parce que inna salaata tanhaa anil julli alquran na dafay dox diggante nit ki ak lu bon waaw xoolal Sénégal ñii julli yëpp ak crise crise valeur bi nga wax ni mel ci réew mi est-ce que kon ñi ngi julli wala kon li yàlla wax moo amul yàlla li mu wax dëgg la julli dafay dox diggante nit ki ak lu bon ñun ñi ngi julli di gën a def lu bon ñi ngi julli di gën a jëme yàlla di gën a wow xol ñi ngi julli di gën a comportement comportement yi ñaaw kon est-ce que ñi ngi julli donc alquran bi mooy loolu gis nga yenentu sallallahu wax na xadis bu am solo bëri na kuy jàng alquran te alquran nañ koy rëbb parce que alquran daf lay wax defal lii nga ne ko defuma ko ba pare di ko jàng kon aay yi daf lay rëbb kon alquran dëgg-dëgg du lu ñuy jàng waaye lu ñuy yegg la di ko dund loolu mooy alquran. Mm-hmm. kon daal bu ma la déggee mooy. Euh, am na différence bu bu bu mag a mag. Mm-hmm. parce que c'est important euh, yenn saa yi nga waxtaan ak nit mais mm-hmm. euh, bu la expliquer wala boog. xëy na eh, il suffit que mu wax la. Mhm. taxawaayam. Mhm. ci alxuraan ak li mu ci xam ak lépp. Mhm. pour diir que ni loolu doy na. pour pour pour pouvoir. Euh, xam-xam lu bëri ci ci ci li nga xam ni moo di. Euh, diine bi euh, tey bu ñu déggee am na xam dañ ne soppee baay. ak taalibe baay. bokkul tey bu ñu doon expliquer li nga xamante ni moom mooy différence boobu noonu. surtout jéem ko jéem ko xamal ñi nga xamante ne sopp nañ Baay fii am na xëy na ñoo xamante ni ñëw nañ fi te jëluñu wér di dugg ñu si tarixa bi mais chaque année ñi ngi fii di ñëw euh, ñoom seen place lan la ci ci faydu bi mmh. laaj nga soxna Astou laaj bu am solo soppe Baay ak taaliba Baay lan mooy différence bi ñaar yëpp baax na nag d'abord loolu laay njëkk a tontu parce que Baay moom moo bind ne wa man yuhibuni wa man yaraani fi jannatil xuldi bila buxtaani is annani xalifatu tijaani foofu wane na sax ngëneel bi nekk xalifa Cheikh Tidiane am ku ma gis man Cheikh Ibrahim wala nga bëgg ma yaa ngi ci aljanaay béel Seydi Mouhamadul Misri bi ñu déggee wax jooju am na ñu doon taawil wax ji <coughs> di wax ne bàyyi jubluwul ci gisu zahir wala bëggu zahir bëgg yóbbu wax ji sax ci affaire maarifa Misri na déet nañ bàyyi yërmande yàlla dépassé na loolu nañ bàyyi ni mu ko waxee rek ñu fireeku ndoonu mm. ndax ku ko bëgg nga mën a dugg ci biir parce que yàlla yërmandeem dafa yaatu moom wax na ne ku ma gis wala nga bëgg ma yaa ngi ci yërmande yàlla waaye wax ji dëgg-dëgg li muy làmb na Baye Niass ku ko gis danga ko bëgg Baye Niass ku ko bëgg dinga ko topp Baye Niass ku ko topp di nga ko roy te yenentu moo ne almaru maa man ahaba <coughs> hadis boobu rek firi na wax ci nit ak kim bëgg ñooy ànd soo bëggee Baye bëggam bëgg bi bàyyi bëgg alquran dafay duggaale ci yow bëgg bi bàyyi bëggoon yonent bi sallallahu alayhi dafay duggaale ci yow. Mm-hmm. xam yàlla bi bàyyi xamoon yàlla xam yàlla googu day duggaale ci yow jukko yi rafet yi nekkoon ci moom day duggaale ci yow su boobaa fu bàyyi ñees fanaan nga fanaan su duggee aljana nga dugg aljana su gisee yonent bi nga gis yonent bi amee maqaama ci yàlla nga am maqaama ci yàlla boo demee ci jawaaril maani <coughs> Cheikh Tidiane day wax foofu ne nit ki di mooy yàlla nit ki ne bëgg na yàlla ba pare di mooy yàlla loolu xiyaasuwul xel mënul jàpp loolu taxsala wa an tasaaru hubbu haza qiyaasun fi haza qiyaasun fi haza muhaalun fi lqiyaasi badia maanaam bëgg naa yàlla waaye topp ma yàlla xam nga loolu yenul maanaam yàlla ku ko bëgg da nga koy topp qul in kuntum tuhibbuuna llaaha fattabi'uunii yuhbibkumu llaah alquran dafa wax ne su ngeen bëggee yàlla topp leen yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam topp yonent bi mooy lan xawlan wa fi'lan yonent bi di wax ni yonent bi doon waxee yonent bi waxam yëpp alquran la ak ak waxu yàlla jëfam yëpp li yàlla bëgg bàyyi li yàlla tere kon ku da nga def li Cheikh Ibrahim doon def da nga wax ni Baye doon waxee dèjà wax na ko sax ci benn lettre nawe ku bëgg ànd man da ngay wax ni ma doon waxee di wax ni ma doon waxee man sama mbir lu leer la ku ànd man da ngay wax ni ma doon waxee di wax ni di def ni ma doon ni ma doon jëfee ni mu doon waxee mooy lan alquran ak wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax moom ñaari sëriñ la am indi shaykhayni shaykhi fi zahir wa shaykhi fi sama sëriñ ci zahir alkitab wa sunna nee na alquran ak wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy sama sëriñu zahir sama sëriñ ci baatin mooy Cheikh Tidiane te du ma tàqali moom benn lax sax benn gendeeku kon nag su fekkee ne moom it bëgg nga ko moom Cheikh Ibrahim soo ko bëggee te mu wér il faut nga roy ko boo ko royee di nga texe. Mm. loolu mooy wax ji dëgg-dëgg loolu lay loolu teg léegi nag différence su ki bëgg bàyyi ak taaliba baay ba tey am na différence taaliba bàyyi mooy ku xam yàlla taaliba bàyyi mooy ku am fàttu ci yàlla taaliba bàyyi mooy koo xam ne amul benn kiiraay bu dox digganteem ak yàlla nit ki fekk mu ngi am kiiraay rek nekk ku taaliba baay yaa ngi dégg mm. taaliba baay dafay am fàttu parce que baay li ko àdduna bi yëpp toppee du ay téere de. baay bi muy ñëw fekk na baayam jàngale na lépp luy téere moo xam ci sariya moo xam ci tariqa lépp lu ñuy jàngale fekk na baayam jàng na ko wax na tim lépp lu ñu war a liir sama fekk naa sama baay bind na ko waaye man liir naa ko waaye bàyyi li li tax àdduna bi yëpp topp ko lu tax day surafaaw yi nii sëñ Baye maar doon ko waxtaan doon ko waxtaanee sànq. surafaawu Murtani yi nga xam ne sërif lañ ci deret di nit ñu tedd waaye di boromi xam-xam gën ñoo mokkal yi fii Sénégal nit ñi dañ daan jógee fii di dem Murtani pour uti xam yooyu nga gis tey Nigéria gi ba ña fa topp baay kenn du ci jaayil nga gis Soudan borom xam-xam yi fa gën a mag tey nekk taaliba baay lan lañ topp baay nga yaakaar ne téere zaahir yi la déedéet leeru alquran bi ma la doon wax mooy maarifatu billaahi loolu lañ toppee Cheikh Ibrahim leer boobu nag bu duggee ci yow yow dootoo am kiiraay sa diggante ak yàlla waxtu woo taxawee ci julli soo ne allahu akbar dara doxatu sa diggante ak yàlla mais mais leer boobu. cest lañ koy toppee moom laa doon laaj de léegi nii rek euh, euh, Baye Mar. Hmm. muy communication bi. Hmm. nu mu def ba jëflanteeg xeet bu nekk moom hmm. bàyyi dem ci euh, ñi nga xamante ni seen ay gëm-gëm dafa sori woo loolu ak lislaam seen ay coutume ak seen ay tradition bokkuñu xeet bokkuñu dara. naka la doon demee réellement ba nga xamante ni tey. fu ne muy Chine surtout. dem Afrique Asie Europe. nu mu nu mu mënee. xam nga mbir yi nan la demee woon. ci jamono jooju euh, xam maanaam mayam yi nit mënu ko sax expliquer ci làmmañ ndax bàyyi dafa wax ne man du ma murid muraad la kaw nii muraadan laa muridan liyal mulku wa tasrif bi mu safal mahwa bàyyi ne man du ma murid muraad la sëriñ si ay murid lañ waaye bàyyi ñees du murid muraad la xam nga lan mooy différence ñaari baat yooyu murid mooy sëriñ si bëgg yàlla doon taqoo weeru koor di def ay xalwa di def ay nawafil pour yàlla pour am cër ci yàlla xam nga loolu lu baax la waaye bàyyi moom nee na namu a mu yàlla maanaam yàlla moo jël ci li ko coobareem li ko neex tibb li ko neex na ko am loolu mooy Cheikh Ibrahim moo tax naar bi ñëwoon kër Maalaaji bi mu defalee li si ma Maalaaji doomam yëpp ku ci nekk parce que Maalaaji doomam yëpp ñëpp ay ay wàllu la ñëpp ay xalifa Cheikh Tidiane lañ bi mu defee li si xaar na sa doom sàngam gis naa ci moom maqaama sàngam nekk mënu ko am na ma gis ci moom waaye sa doom bii ñuy wax Ibrahima sha'nun min shu'unil moom mbir la ci mbiru yàlla yi kenn mënu ko expliquer communication bàyyi communication roxaan yi lay def bàyyi duy wax ay nopp de ay ruu lay waxal dégg wax bi mm. ay ruu lay waxal moo tax gis nga bu toogaan fii di gàmm waaw waaw waaw la daan wax yenent bi waaw yenent bi waaw naar yi di ko dégg gis nga waaw jooju rek am na ñu ci yeggee ci yàlla macha parce que ya takkalama bi bi bi roxaanitil insaan yi dafay wax ak ruubu mbindee fi waaye waxul ak seen jëmmi ah. communication boobu mu doon def moo ko may àdduna bi yëpp dégg dégg dégg misaasam xam mission am moo tax tamit bu waxaan ñëpp koy dégg bàyyi jëmmam ji rek day def tasir ci ay xol maanaam jëmmam ji rek gis ko mën na mën na dugal sa xol lislaam mm-hmm. mën na tax nga bëgg lislaam mën a tax nga bëgg nga nga nga nga bëgg tariqa tijaan donc euh, beneen bi ci des sëriñ bi wax na la ko ki fi jógee sànq ndigal li xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla daf ko wax ci alquran wa daaya ilallaahi bi iznihi wa sirajan na nga woote ci yàlla ci ndigalal yàlla waaye ak siraajeen muniir siraajeen muniir mooy lumière képp kuy woote ci yàlla te amoo lumière doo sori lumière mooy xam-xam. Mhm. woote ci yàlla ndigal moo koy def ak xam-xam te ñaar yooyu la bàyyi yore woon Baay Ñas mosul wàcc ci kaw lalam dem ci benn dëkk lu dul ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam moo ko wax na ko joxal nga dem dëkk sàngam moo tax su wàccee foofu rek day def tasrif ci xol yépp parce que ndigal ndigal ndigal ndigal lay demee tukki yi mu doon tukki amul benn tukki bu mu def boo xam ne cëru bakkanam la. wa am na fu mu ko bind alima xaaliqi bi anna safari maa fii hazun min xusuusil basari yàlla mi ma bind xam na ne voyage yi may def cëru bakkan amut ci amul benn intérêt bu aji sama bakkan mmh. waaye dama koy def pour li ma yore njëriñ bi ma yore ma transformé ko mu dem ci mu dem ci mbindéef fi ndigal loolu ak xam-xam boobu mu am moo ko mayoon communication bi yemul ci ay nopp mais ci ay ruuxu la doon dem. mais ba ci communication boobu dañuy faral ji dégg. Hmm. ñu ne Sénégal xamuñu baay waaw yeneen xeeti ñoom ñoo ko gën a. Euh, xam wala bu xam bi en tout cas au vrai sens du terme. ak surtout cër bi nga xamante ni moom lañ koy jox jox ko hmm. njabootam. jox ko hmm. ay euh, jàngaleem ak yu demee noonu. dëgg la euh, yow loolu ban gis-gis nga ci am. waaw xam nga loolu wiraasa Muhammadiya la loolu ndono la bu Baye am ci yonent bi sallallahu alayhi xam nga tey ñu ngi wax waxu Arabie Saoudite kañ lañ commencé gàmmu même pas deux ans daaw ren léegi commencé nañ gàmmu fekk si nañ ñu fekk si nañ suñ mag ñi. Mm. ñi ñaanal suñ mag ñi yàlla fay leen loolu yëpp seen liggéey la. Mm. Arabie Saoudite biñ commencé gàmmu biñ commencé defal feet juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàggul te ñu ngi feetal seeni jabar ak seen i seeni seen i doom xam nga lu tax même soo waxee Seydina Muhammad sax rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñoom dañ naan waruloo wax loolu Muhammad ibn Abdullah rek nga war wax wala Muhammad rasulullah maanaam ñun gëdd biñ jox yonent bi fa mu juddoo ko ko parce que loolu hijab la gis nga ventilateur bi ventilo bi upp soo taxawee ci ronam du la upp il nga am espace tuuti nga dand ko pour ngelaw bi mën a ñëw ci yow est-ce bu yaa ngi mm. maanaam nit ki lu ko jege ba jege du ko gis gis nga sa xef yi nii lim la jege moo tax mënu ko gis sa ndong bi boo amul ñaari seetu du ko gis est-ce que loolu moo tax nitu yàlla jege ko ñi gën a ñàkk saas ci nitu yàlla yi mooy ñi leen gën a jege. yenentu bi ñi ko jege woon ci màkkam gis nga même ci xunt bi mu duggee ci xunt mi yi ñëwee di ko seet bi muy gàddaay mënuñ ko gis Seydina Abubakar ne yenentu pourtant amaytum na xaraf tuuti ko parce que yenentu leer la ku sa xol amul leer doo gis yenentu bi sallallahu alayhi wasallam loolu la bàyyi loolu la Cheikh Tidiane doon gis nga Cheikh boo demoon fee fees Maroc xaw ma ndax mas nga fa dem. waaw fa fa mu nekk ak. waaw xoolal xoolal Cheikh Tidiane fi mu dëkk ci Maroc. ngay gis naar ga naar bu téye cigarette am ci buntu saawee Cheikh Tidiane di tux kooku xamul maqaama Cheikh Tidiane xamul xutbul maktoom xamul ne xutbul maktoom moo tëdd foofu xamul loolu. xamul ne jëmmu wilaaya moo tëdd foofu xamuñu loolu parce que kiraay la. tey nii Medina Baye mel ci Cheikh Tidiane Tivaouane mel ko Medina Gounass mel ko nga xam ne boo am na ñoo xam ne suñu déggee turu Cheikh Tidiane dañuy jooy. Mm. waa waa Fass meluñu noonu parce que jege kiiraay la. gis nga wiraasa boobu ndonu googu loolu la bàyyi donn ci ñoom moo tax Sénégal ñoo gaaw a gis Baye mais nag euh, suñu euh, sëriñ bu baax ñi ko wax Baye Tuuti Ñas rahimullah yàlla na yàlla yokk leeram. Mm. dekkoon ko bëgg bàyyi nekkoon soldaaru pays bi daf daan wax lu am solo. mu ne sooy lekk benn misaal mu am solo mu ne soo sooy lekk soo tibbee ba pare li nekk ci sa biir loxo bi doo ko surveiller maanaam li nekk ci biti doo li nekk ci li li nekk ci biir loxo bi doo ko surveiller mais pepp ceeb bi ne ci biti moom ngay mar xam nga pepp ceeb bi ne ci biti su fekkee rëccuñ bi ne ci biir kenn waxaaliwu ko dégg misaal moomu maanaam nee na bàyyi soo gisee mu wër dem ci ra dem ragle ragle ci biti ba pare day leer na ñi ne ci biti nem ñoom la mbaal gi jàpp ñi ne ci biir duñu rëcc. parce que soo xoolee diggante 2000 léegi 10 ans yii nii faydu bi ni mel ci Sénégal ak jeunesse bi ni ñu joxee bopp bàyyi ci ci Sénégal nga gis ay mbiram ni mu mel ci réew mi actuellement moo lay wan na ñi ngi ko commencé xam. Mhm. te maa ngi ñaan yàlla ñëpp xam ko. nit yàlla yëpp yàlla nañ leen xam. parce que ñoom njëriñ rek lañ yor mbaax rek lañ yor ku leen xam lu baax rek ngay xam. mais mais yenn saa yi ñu ne Baye dafa tànn ay taalibeem euh, loolu est-ce que duñ ne. Euh, luñ koy waxee la ci yeneen euh, sëriñ yi rek ni ku ci nekk. Euh, sa ay taalibe danga koy tànn. Mhm. ci ay anam yoo xamante ni xëy na ump ñu bëri. wala dafa nekk benn particularité boo xamante ni dañ naan loolu bàyyi rek moo ko mhm. moo moo ko am. loolu gis nga loolu xaqiqa la loolu xaqiqa la gis nga yow ma arasu bi rabbikum foofu la lépp xewee gis nga ci zaahir zaahir bi mooy misaal baatin bi ci zaahir jigéen boo gis ak góor goo gis. yàlla bind na ci yow ma alastu bi rabbikum ñaata doom la war a am ci kaw suuf maanaam ku nekk doom yi nga war a am. Mm. sa ruuxu doom yooyu topp naa la ca azal doom yooyu ci saayir il faut tëjiliyaati indi ko gis nga noonu mel ci saayir ci xaqiqa bi noonu la mel képp koo xam ne ci azal sa ruuxu dafa amoon kolabara ak ruuxu Cheikh Ibrahim mënoo rëcc bàyyi moo tax faydu bi bi mu tàkkee bees coow li bëri inkaar bi métti ñii dingat bàyyi di ko wax lu nekk. comme ni mu ko bindee moom ba moom ci boppam ramoom ni bil kufri wa tafasuq wal junooni wa itqaalu fi tariqati maa laysa fii fa sabartu lillah wax nañ ma ne yéeféer laa wax nañ ma ne man euh, kaacoor laa wax nañ ne maa yàq tariqa bi ma yàq diina ji mu ne ma muñ rek xam ne lu yàlla na mu doom gis nga jamono jooy bàyyi daf daa dégg ci nettali mag ñi da bàyyi daf daan wax ne bari na ñu may weddi waaye seen ruuxu doom yi ñu ngi may sàbbal ci seen digg ñoom dégg wax relation ak moom ci ci ëzal su ngeen ñëwee fii ci ëbët ci zahir faw nga nekk taalibe mënoo ko rëcc ak foo mën a nekk yaa ngi dégg moo tax boo xoolee ci rexla bi pour mayi bàyyi ci rexlaam boo demee ci rexlaam ci tukkeem mu ngi nettali lu yéeme mu ngi wax ne bu surtout anal xatma fi manaami xaala ani mudrikul xaala ani mudrikul maraami cheikhu tariqati wa qaana qadri bu surtout anal xatma fi manaami qaala anni bi adrik bi bi mu euh, qaala anni mudrikul marama cheikhu tariqati wa kaana xaadiri aqsa an yoobi fi konakiri yudoa bi ndongo foofu alamun xaddantu euh, hiina li alamu soo demee foofu bàyyi mu ngi wax ne Cheikh Tidiane wax na ma ma indil ko muqaddamu qaadir bu mag bu ñuy wax ndongo saar na naa ko indil tariqa bi gis naa Cheikh Tidiane ci nelaw nee na naa ko indil ndongo saar xoolal moom fa nekk mais euh, yàlla bindoon na ci ësal ne ci toppam Cheikh ak ñeneen ñi ko topp ci àdduna bépp ci ay kàngam. Mm. donc yeneen sëriñ ñi ngay gis ci réew mi itam noonu la mel su fekkee ne ci ësal sa ruuxu dafa amoon relation ak ruuxu Cheikh Ahmad Bamba wala mu am relation ak ruuxu euh, Mame Alhaji Malick ñooñu foo jaar nekk seen topp loolu xaqiqa la maanaam loolu baatin baatin la ci biir. Mm-hmm. balaa za bi di ñëw. ànd ak nag ne. Mm-hmm. nekk taalibe Baay mayu yàlla bu mag la parce que Baay ni mu nekkee muraat namu na mu yàlla. ni ko yàlla nammee moom ba jox ko lim ko jox loo xam ne dafa yëm àddina yëpp noonu la ay taalibeem nekkee ay muraad maanaam taaliba baay yàllaa koy namm pour mu nekk taaliba baay parce moom moo ko bind kullu muridin yasdari muridi bi xidmatin wa adabin muridi lakin man saaxib lakin man saaxibani muraad bàyyi nee na taalibe yeneen sëriñ si mën nañoo raw sama taalibe ci dàqa liggéeyal sa sëriñ maa raw leen ci dàqa liggéey wala di xitmaal seen sëriñ wala di leen tarbiya loolu mën nañ yàllaa leen na nam lakin man saahibani murad wax na it ne moom Cheikh Ibrahim sama taalibe moo gën a jafe mercure rouge yoo xam nga mercure. Mhm. mercure li muy jafe te waxul waxul moo gën a jafe maanaam ni mu jafe ci miskin xam nga mercure même boo amee xaalis sax yombu ci yow mais miskin mooy faqir ku ñàkk ni ko mercure gis mercure ni mu ko jafee bàyyi nee na sama taalibe moo gën a jafe gis sama taalibe parce que d'abord taalibe bàyyi il faut mu nekk muslim sahih il faut nga nekk jullit bu wér. di pratiquer l'islam comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon pratiquer ak ay saxaabam mm-hmm. taaliba baay faw nga nekk tijaan sax yi faw nga nekk tijaan bu wér di pratiquer tariqa bi comme ni ko Cheikh Tidiane doon pratiquer ak ay saxaabam yaa ngi dégg pour nga bara door ma nekk taaliba baay su loolu weesoo nag yàlla dindi sa kiiraay yépp amatoo benn kiiraay sa diggante sa borom yow sooy jaamu yàlla jaamoo yàlla ngir xaar aljana wala sax taaliba baay du jaamu yàlla ngir aljana ak safara taaliba baay dafay jaamu yàlla li wacci laayil karim parce que yàlla yàlla ku koy jaamu amu fi moom wax na ci alquran wallaahu xalaqakum wa maa taamaluun man yàlla maa leen bind maa bind li ngeen di def bàyyi daan na ko léebu sax ci saahir mu ne balaa ngay julli il faut nga jàpp ndox mi ngay jàppee ndoxum yàlla la alquran ji ngay jàng yàlla ko wàccee suuf si nga taxaw yàllaa ko moom kattan bi nga am di julli yàllaa ko moom kon yow lan nga am ci julli gi bay adresse sa bopp ne yaa ngi jaamu yàlla mm-hmm. kon yàlla mooy jaamu di la askane yow jaamu gi kenn defalu ko dara donc maqaama moomu nag Mhm. ci la taalibe Baay taxaw moo tax nekk taalibe Baay yomb yàlla ñu ko yàlla def ñun ñëpp. amiin yaa bi te te bokk na ci li nga xam ne mooy particularité bu ñuy gis ci mm. fayda bi. Mm. mooy ñu gis ay ndaw ay ndaw yoo xamante ni dañuy am xam-xam parce que mm. loolu aussi bokk dañ naan euh, en tout cas du du du bërëb boo xamante ni euh, siis na ci mbirum savoir maanaam pour xam. dafay am loo xamante ne lu yaatu luñ lay hmm. tegal loo xamante ni boo ci dëppuwee hmm. rek yow fi nga bëgg a egg da nga fay egg ci ndaw yenn saa itam ñu ne loolu mën na doon arme hmm. boo xamante ni euh, xëy na bu ko bu ñu ko jëlul à en bon escient mën na nekk loo xamante ni après mën na indi ay ay jëye est-ce que déjà yow d'accord nga ci loolu le fait que ñuy jël ay xam-xam boo xamante ni ay wàllu kaamil ñoo daan lañ daan gis ñu koy ñu def ko ci ndaw boo xamante ni euh, en tout cas euh, ndaw la mënoon xaar ba ci kanam am yooyu laaj nga laaj bu am solo gis nga Cheikh Ibrahim dafa soppi histoire Baye dafa soppi histoire ci Zahir ak ci baatin ci Zahir wax naa la sànq na la ñun dañ daan génn réew mi uti xam-xam buñ daan uti xam-xam ci nit ñu weex ñi la dem dañuy dem Maroc wala ñu dem Caire Égypte wala ñu dem Mauritanie uti fa xam-xam léegi contraire bi moo am Baye dafa wëlbati affaire bi léegi naar yi ñoo ñëw fii sukk di wut xam-xam ci Baye. te ñun ñu daan dem di wuti xam-xam kon soppi na histoire beneen histoire bi mu soppi bu njëkk liñ xamoon fii ci senegal balaa nga daan gis ni téye kurus di widd day fekk mu béjaaw wala mu yor ñaari jabar jàpp ñett dem ba xam ne yàlla iblis si boppam soxlaatu ko mu door a jublu yàlla est yaa ngi dégg tariqa bi balaa ci doon ni dem ijaasa dina am 50 ans 60 ans 70 ans mag mu dem ba am 70 ans kooku lan la mën a indil Cheikh Tidiane ci tariqa bi kooku mënul daawa woote ci yàlla ndaw moo koy def gis nga lépp lu du ci yàlla kese même ci àddina ndaw moo ndaw moo yore avenir mais du mag mag wàllam jàll na moom li ko war rek mooy conseil ndaw est-ce que yaa ngi dégg yonent bi salaa boo xoolee ñu yàlla may yëpp ci seen génération ndaw yonent bi ko yàlla di yónni bi muy wax inni rasulullah ilaykum taxaw ci mbeddi màkk yi di wax man la yàlla yónni ma jëm ci mbindéef yi ñëpp nag kaafatul xalqi boobu 40 ans la am eh, Seexu Tijaan bi muy toog ci bopp wàllu yëpp nekk aynul wilaaya nekk jëmm wilaaya 46 ans la am Cheikh Ibrahim mii nga xam ne tey moo jommal àdduna bi muy wax ne bi muy wax ne euh, fa qultu laa ilaha illa allah muhammadun asalahu ilahu fa faada minni sirruhu fala ahad yaxsudu ni ma fala samat ku ma jublu ma dagg sa kiraay sa diggante yàlla képp ku ma jox loxo jox nga loxo Cheikh Tidiane bi muy wax loolu 29 ans la te loolu sax li nit ñi mën a dégg ci saayir rek la mais bàyyi bàyyi gis nga bàyyi mayam dafa dépassé alam bii ñu nekk bàyyi li li mu am mayami yàlla jox na ko fekk sax juddoogut te bind na ko na nasaxtu taahiran maa qultu faqaran bal nataxtu shakiran maa qattu jaalastu safihan wala ma asab si waa fuhuli qawmil ulama bàyyi na man dama sosu rek laab dama sosu set wécc laab ci zahir laab ci baatin aw moom benn hijab dégg nga mu ne waxuma ko ngir puukaréew dama koy wax ngir sant yàlla moo tax fu ngeen ma mas gis même bi ma bi ma nekkee xale ponkal yi rek laay toogal du ma toogal xale yi bàyyi bi muy nekk kuy borom xam-xam yi ponkal yi daan seeti maalaaj yi surafaaw yi ñoom lay tooga di discuter ñoom ci ay masala te loolu zaahir la mm-hmm. yaa ngi dégg wax na ne euh, wax na ne waqad tama fati inda mahdi waqad am waqad anat jamiu rijaalil xaybi taxadaay bàyyi na ne bi may nekk ci berso ci la sama fatu ci yàlla mat fatu googu muy wax moom la nit yàlla yi daan wër 40 ans di fanaan ci ay armel bàyyi na ne bi muy am nekk ci bersoom moom la am fatu googu mu ne rijaalul xay bi góori xay bu yëpp nekk ci sama ron kon moom lii feeñ ci zahir xëy na lu ñu mën a expliquer rek la waaye mayam euh, dépassé na loolu donc lu tax euh, ma ñëw ci lu am solo li may laaj maanaam lu tax tey ngay gis taalibe Baay par exemple man mii sama génération bi tey ñëwee la am naa ijaasa euh, ab sëriñ laa maa ngi yore maa ngi joxe tarixa tijaan maa ngi joxe tarbiya parce que leer gi Baay yore moo rëy Baay leer gee bëri moo tax même xale bu ko toppee day am leer bu njëkk sëriñ si da ngay ànd ak ñoom ba am 60 ans door a am leer bàyyi da ngay ànd ak moom ñaari at mu sol ci yow leer ba nga mën koo transférer fereen loolu moo waral nga gis ndaw yi ànd ak moom xam-xam bi mu am mu tëbbu leen xam-xam te bu leen jub macha allah taalibe ba yi bëri xale boo xam ne 25 ans 35 ans la am soo ko gisee da ngay da ngay daje mag mu béjaaw mu nuyu la ñaari loxo wallahi da ngay da ngay tiit après su demee rek nga ne lii yëpp bàyyi la du man la gis sax waaye bàyyi la gis. yaa ngi dégg. Mm. Euh, ndaw moo yore avenir bokk na ci histoire yi Baye soppi même tariqa bii nii daawuñu ko jox jigéen Baye bi muy feeñ booba tariqa tijaan góor ñu ëpp góor ñi lañ ko daan jox waaye jigéen sax mais boo ñëwee fii baay dangay ngay gis fi xale jigéen yoo xam ne 18 ans la ñu am ñoom ñëpp xam nañu yàlla kenn amatu ci kiraay koo ci waxtaanal ci yàlla mu wax la loo ma sa dégg ci yàlla. Mm-hmm. donc kon moom mayam gi dépendre ci ay góor dépendre ci jigéen waa am na am na fu ko wax na ne faydu bii dépendre ci góor man sama góor ñi góor lañ sama jigéen ñi góor lañ. képp ku xas ba am fanaaw ci yàlla rek maqaamu bu góor ñi taxaw taxaw nga ci même doomam mi jigéen yi wax na leen ko yaa ayyuhal banaat zahim na ila nayla ala ama bil abdaani fala yéen sama doomi jigéen bu leen yaafus ngeen topp sañse yeeg wala ay or yeeg yooyu buux buuxu la rëj laa ngeen rëj dajloo ak góor ñi ci maqaamay kaw yi kon kon parité bi ñuy wax tey xëy na beneen conception bu bees la rek boo xamante ni bàyyi tracé na parité bu euh, mm. maanaam moom boo déggee ñu ne lépp bàyyi lépp lu lépp loo gis ñu actuellement ñi koy dund wala ñi yoon lii war nañ ko def rek fekk na moom jiitu na ci yàgg na. Hmm. bi muy jox cër jigéen kenn joxul cër jigéen. donc parce que loolu dara même euh, benn benn dafa am ko ko bind leetar dafa am benn euh, ay secret ci tariqa bi ñu tuddee maqaasit soo tarbiya ba am fattu dañ la koy jox nga koy liggéey bokk na ci mbóoti gën a màgg ci tariqa bi ku amul xamu ku amul isma ku azam duñ ko jox secret yooyu. Hmm. am ku laaj bàyyi na ko ndax mën nañ ko jox jigéen. bàyyi na ko amal maqaasiru fa xaswa aarifin maa kullu majzowin bi zaakal aarifi bal man baqa badal fana wa salaka najo rasul xaqi wa naf malak bàyyi na ko maqaasid yi ngi may laaj cëru aarif la te aarif boobu mën naa nekk góor mën naa nekk jigéen kon kum nekk cëram rek dañ ko ko jox dépendre ci góor képp ku am fanaaw ci yàlla jeex ci yàlla takk soobu ci naf naaja rasulil xaqi mooy daf baqaaw ci yenentu bi rasulil xaqi yenentu bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi na ne mérito nañu jox yooyu bi muy tracé parité boobu assemblée amagul. dëgg la xëy na hmm. beneen dégg-dégg lañ ci am. ci hmm. jamono yi ñu nekk. nga xam ne euh, dañ ko moderniser bu baax a baax xëy na hmm. soppi rek yenn appellation yi ak yenn euh, euh, conception ñu lay gërëm bu baax a baax. waaw jërëjëf jërëjëf waxtu bi moo jot ñu bàyyi la nga tàggoo ak. téléspectateur jërëjëf naa tàggoo benn message bu am solo rek. ci gàmmukat yi. da meññ maanaam gàmm gi da meññ général ak ñii gàmmu ji. parce que man damay faral di topp réseaux sociaux yi internet bi boo xoolee bari na weerante yu fay am. ñu ne gàmmu bi daal en tout cas pour certains waxuma waxaa bi entre nous ñun ñi gàmm suñu bopp ñu ngi rayante ci internet bi kii moo njëkk a def gàmm kii njëkkul a def gàmm bi màggal Tuubaa jeexee gis naa ku wax ne championnat bi jeex na coupe du monde ngi ñëw gis nga façon wax yooyu mooy féewale tariqa yi. Mhm. nañ moytu façon yooyu. affaire tariqa du ay coupe du monde ak ay championnat tariqa yenentu bi sa maanaam gàmm ci boppam pour yeneentu bi la weeru gàmm su teroo dèjà kenn warul mer kenn warul mer weeru gàmm su teroo ñëpp war a bàyyi su gàmm jotaan day ree rek naka jëkk dafa tabe woon day gën a tabe day hmm. maye loo bëgg ci moom mu jox la ñëpp noonu la ñu war a mel kuy dem Tiwaawan noonu nga war a mel kuy dem Kaolack war waaye nekk ci ay werante ay sama sëriñ mooy lii sa sëriñ du lii nangam kii moo yor championnat loolu amul benn njëriñ nañ bàyyi façon yooyu parce que loolu dafay féewale nit ñi dafay rey ay xol dafay tax gàmm gi bàkkaar nga fay jëlee mais doo fa jëlee yàlla. na solo nañu bokk nekk benn di ñaan yàlla ñëpp gàmm ji ci jàmm. amiin dellusiwaat ci jàmm di la remercier di la ñaanal tamit yàlla gën a dëgëral sa taxawaay di ñaanal 2STV yi nga xam ne mooy suñu télé waaye di ñaanal ñi nga xam ne ñoo ko jidee di nuyu waa réew mi yëpp di jéggalu nag su fekkee ne kàddu yi ñu wax am na lu ci dépassé ñu ngi jégalu ci loolu di wax salaamaaleykum wa euh, kàddu yi ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax waxtaan wi tam am solo di ko remercier moom euh, Seydi Aliou Cissé donc euh, moom lañ fi dalaloon en deuxième partie doon waxtaanee lu jëm ci Baye ak gàmmu geek li nga xamante ni moom mooy jàngaleem ci tarixa bi di remercier képp ku ñu doon suivre depuis ci 10 heures ak léegi merci aux techniciens yi nga xam ni ñoo jàpp bu baax a baax ci ci ci liggéey bi équipe bi nga xam ne déployé nañ leen fii ci Medina Baye donc dingeen am programme boo xamante ni dina dëppoo ak euh, événement bi di euh, gàmmu bi suba ci samedi bi donc bu leen ratee benn ci suñu ay euh, programme di leen wax que ni ñu ngi leen jox rendez-vous donc tout de suite ci yeneen i programme merci beaucoup